bismillah rahmaani merci monsieur le président asalaamaaleykum mes chers collègues honorables députés monsieur les ministres collaborateurs des ministres monsieur le ministre damaa jóge ci département de Kaffrine mu doon département boo xam ne dañuy gën a sant président Macky Sall le président de de la république de tous les sénégalais monsieur le ministre ci fan yële rek nga ñëwoon fa inaugurel ñu commissariat wu Katakel arrondissement Katakel mu mucc ayib lool sphère administrative bu Kaffrine aussi macha allah pare na xam naa ñu ngi leen di séntu ci fan yu néew pour ngeen ñëw inaugurer ko waaye monsieur le ministre ñu bëgg arrondissement ñii bi ngeen fexe ñu am euh, commissariat bu mucc ayib soxla nañ aussi unité d'intervention chapeur pompier ak bureau d'enrôlement pour quart d'identité nationale monsieur le ministre mu nekk marraine d'honneur bu 15 700 chefs de village ñu gis ne président de la république fi mu teg chef de village yi ak jëmmal jim leen jëmmal ñu lay ñaan rek nga gën koo dooleel incha allah nga gën leen a jàppale ci li nga xam ne moom la président programme ci ñoom ñu ngi la ciy xaar bu baax a baax monsieur le ministre may wax rek ak sama collègue député yi fi toog man seen ànd bi jaaxal na ma. ndax gis naa fii koo xam ne ci yéen fu mu toll ma nga naan France dégage Amérique dégage ah Turquie dégage Angleterre dégage mais France dégage waroon nañ ko rus man maa ngi rendre hommage jigéen ju mag nekk première dame fii ci Sénégal muy madame Viviane Wade tabaxal ñu fii hôpital bu mucc ayib maam Ablaye Wade liggéey fi liggéey bu am solo ak kenn koo xam ne rek war da ngay xool sa intérêt personnel waroon nga cee xool tey madame Viviane Wade moomu France la jóge Karim Wade mi ñuy wax fii tey am ay nijaayam am ay cousinam am ay mbokkam ñu nekk ca France nga bëgg a dégager France te mbokk fii ci réew mi Souleymane Ndiaye barki démb mu defal ñu lu rafet bi équipe nationale sénégalaise di football yaayam lan la du française ci mondialisation lañ nekk nañ ñu dimbale président Macky Sall xam na loolu te gis nga yow mii ku fi taxaw di wax ndax dama fee dégg léegi ku wàcc naan xobu xël gi tax xajul ci gémmiñu tef tef la wax fii ay jaxaluur ñoo fi nekk macha allah fii tef nekk fi jaxaluur a fi nekk président Macky Sall àndul ak tef àndul ak ragal àndul ak kuy yox yox yi àndul ak kuy tooñ dëgg la ñu wax fii ma ne monsieur le ministre ñun ñëpp dañoo war laa jàppale ci assurer sécurité intérieur ndax kenn ku ci nekk ci ñun koñ boo nekk rek ku fa jub xam nga ko ku fa jubati xam nga ko waaw lu tax du ñu dénoncé lu tax duñu ñu dañoo war di dénoncé dañ laa war di jàppale sa budget bi waruñ woon a yem budget bii nga xam ne moom la président Macky Sall nattal rek ñun ñëpp kenn ku ci nekk ñun dafa war a contribuer ndax ku ne xam na ne sécurité réew mi fi mu toll nii macha allah ñiy mer ñëpp dañoo nekk ci lu dul dëgg wala ñuy waaj njubadi wala ñu am ñuñ lëkkaloon ñoo ñu nag ku ci def lu jubadi ma ne rëqal ndigam lu mu laaj ñu def ko monsieur le damaa dégg fii léegi ku fi taxaw daan ne la lan moo tax ngay sécuriser sëriñ si bàyyi sëriñ see waa ana sëriñ boo xam ne nii dangaa yor say rawaan yoo xam ne ñoo fi mën a jële président Macky Sall nga ne nga nekk sëriñ boo xam ne yaa ne woon su Karim wa su Khalifa Sall duggee ci kaso bi maa ngi moom ñooy bokk ci biir nga wax sa wax mu teggeeku nga bëgg a taxaw fii laa la wax li ñuy wax ragaluñ ci sëriñ bu fi nekk doon sëriñ ñu jox la cëru sëriñ ku fi nekk bëgg a jël président Macky Sall def ko morom ñu dal sa kaw ku respecté suñu kilifa ñu respecté la ku respecté président Macky Sall président de tous Sénégal ñu teg sa place ragaluñ maa ko wax man Amy Ndiaye ñii maa ko wax maa ko wax ma ne ministre monsieur ministre xoolal ku fi bindoo ne tama ñu tegale ñaari président Macky Sall lu leen seen sëriñ jaral ñun jaral nañu lu ko raw moom lañ àndal tey moom lañ àndal suba moom lañ àndal gannaaw suba ma ne sëriñ day day day jël li yàlla wax mu def ko di koy sëriñ mooy lan ku fi yàlla teg nga ànd ak moom su yàlla jeexalee nguuram nga ànd ak keneen ka fi yàlla teg sëriñ noonu lay doxee maa ngi sant nit ñi di gërëm nit ñi di leen wax ne xoolal ma ne ay président Macky Sall yi suñ bakkan lañ ci teg lu mu leen jaral jaral nañu ko wasalaam. <laughs> maa ngi lay nuyu bu baax na ah, nuyu aussi sama collègue euh, secrétaire élu yi nga xam ne jar nañoo nuy bu baax vraiment ci liggéey bi ñuy def di nuyu vraiment muse le ministre du l' di nuyu vraiment le ministre des finances et du budget le ministre du travail euh, vraiment di nuyu aussi suñu frère euh, le ministre Birame Faye monsieur le ministre maa ngi lay nuyu bu baax vraiment di la sant président 조금만 봐보자 이게. continue. Donc, chers collègues, on s'écoute, s'il vous plaît. Ah, ñu may ñu ñu yëgale eh, monsieur le ministre de l'intérieur mais président ñu may ñu ñu yëgale euh, chers collègues monsieur le ministre Le concours à l'Assemblée, suspension de séance, la revue des prévus à